bi ma nekk Sénégal la jàngi neexoon na te bari na ay ay xarit ñu ngi nekkoon lu toll ci quatorze ndongo école bi dafa école bi dafa metti woon tuuti ñuy wax fulaani ak tuuti français ñuy liggéey ak ak cahier ak ardoise ñuy bind ci kaw ardoise bi ak crayon def mat ak bind ay bat ci Suisse amatu amatuñu ay ardoise dañuy bind lépp ci kay dama tàmmu bind ci kay bi c'est